passeport fu ma neex tukki mais yow mënoo génn Barcelone soko mënoo génn Espagne mënoo dem soirée Waly mënoo dem soirée Sidi mënoo dem ci Pape Diouf mënoo dem ci Kaba Seck mënoo dem ci Viviane Adama bu Viviane ñëwee ma nga fa Pape Diouf bu ñëwee ma nga fa Sidi Diop bu ñëwee ma nga fa Waly ko sekk bu ñëwee ma nga fa ak keneen ak keneen ak keneen yow mënoo génn biir Barcelone mais kooku kooku kooku différence bi dafa bëri différence bi daa bëri kali yow da nga jógee Cologne di ñëw bon ñu def la yow yaay Kali Refoulé gars yi may leen ma Kali Refoulé ci commentaire yi dafa jóge Cologne di ñëw bon ci soirée Wally Balla Seck bi ñëw ba ci frontière bi ñu ubbi passeport bi mu jeex visa bi jeex euh, passeport euh, diplomate bi dañ koo retiré léegi nag bu koy indi woon Allemagne dañ koy la yow loo jàng lan nga xam ba war a am diplomatique ndax almaa yi dañoo sévère ñu xool ko mu yor passeport bu vide amul visa amul kayit ñu kattaan ndayam ci frontière bi mu dellu France di duul naan damaa fàtte sama yére Californie daa ñëw ba ci frontière bi ñu wëññiwaat ndayam ñëwul bon de egsiwul na nag Félix Pouce ba départ mais danoo kattaan ndayam ndax fii ay kayit ñoo fi dugg Allemagne du ay jaaxaan kon awma lu may wax moom gars yi may leen ma kali refoulé ci commentaire yi bu ngeen sama yaram tàng bindal leen ma ci commentaire yi kali refoulé ndax loolu lañ ko def mu gaaw ma continé waaw kali refoulé ci commentaire yi très bien léegi nag beneen affaire bi ma leen di waayaat très bien kali refoulé rek beneen affaire bi ma leen di mayaat mooy Khalifa Sall ak Ousmane Sonko moo ko dal guddeem gi yëpp. da ko daan jël di toroxal Ousmane Sonko di ko wax lu ñaaw. daan jël di toroxal ko wax lu ñaaw. daan jël di toroxal di ko wax lu ñaaw. ku laalati Ousmane Sonko ma lekk sa data ndey Sonko ku ko waxati benn baat ma dugg sa biir lëfal ndey Kalifone Sall yow yaay kan Kali yaayu Ousmane Sonko yaa ko njëkk taf di ko saaga ndey nga teg ko fan yaayu Ousmane Sonko politikul papam politikul yaayam politikul xadi ngom bu nit ñi amé photom yalla ak sa jëm dé tax ya tot sa ciot nday kali nga jël photo yaayi Kalifon Sall ya yaayu yaayu usman Sonko joxé ko pour taf di saga Ya deug sa nday ah yaayu usman Sonko du sa morom bo laalaté Usman Sonko ma katt sa nday nekkon ci pouvoir motax nga né da ngay def lula neex ah waa kër Ousmane Sonko yi buñ la plantee kali dara du la ci fekk te yow boo tooñee buñ plantee ñu jàpp ñële loolu jeex na juma yee dëri réew mi ku dugg ci loo wër dugg mu dëgg sa séeréer bu amul jaaxaan la jaaxaan faaxee doomu xaraam ji Kaliphone ñu defal ko passeport diplomatique muy voyage kali du mét kali ministre kali du député kali jiite wul njiit bokkul ci gouvernement di yor passeport diplomatique pour lan fun ko teg pass passeport diplomatique da koy mérito passeport bi diplomatique da koy liggéey passeport diplomatique day da ngay wax loo xaw Sénégal ba tax nga am jox ko ko muy tere leen dem fu ko neex moom lay jomay di kat data ndayam retiré moo tax ba mu jógee ba mu jógee Paris di ñëw ci Wally Ballago Seck bi boon ñëw ba ci frontière bi ñu laaj ko këyit mu woné passeportam ñu tok toj ndayam delo wat ko ne ko passeport bu di munta deglu munta dugg Allemagne Allemagne sévère katal sa day delu Paris muy wër di dul nan yegg si bon boon Paris euh, bon ni la mel euh, colagne ni la mel dedet Californie sal fu mu dem day tal vidéo na génné ben vidéo bu lay wone Californie Kaliphone na bon Kaliphone dugg na bir Cologne amu parce que dugul bon frontière la yam ñu kat ndayam wat ko Paris man ma leen ko wax information bobu fii ay jaaxaan dugg fi de faw nga am ay papier yu wóor fii lu vide dugg fi de fii mooy Allemagne das ist Deutschland okay hier gibt es keinen Spaß ist klar hier muss man alles in Ordnung machen Dokument ohne Dokument raus das ist kein Problem ist das so tut mir leid Kali aber das ist so hier ist Deutschland kann man nicht so einfach rein und raus wann du willst nein Du musst die illegale Dokumente haben, dann musst du hier bleiben. Hast du nichts, warte, gehst du raus. Das ist ganz einfach. Nina. Alma, Nina, wie in Deutschland. Merci beaucoup, Wai. Allemagne ngi Welcome in Deutschland. Hier ist Deutschland. fii in dëkk bi du dëgg. waaw fi moy allemand ay jaaxaan dugg fi kali da ngaa teel live da umu kali yow départ desa dèjà man nawloowu kali gay? Kamu xam nga Subus tax Félix talk la jël da nga toog ba sa yu boy yow boo yoreen kayit wala tere Félix Subus, da ngay toog ba sa taat yi boo ko sax ay gom lay def yaa ñàkk ndayu fayda xam ngeen béyee bi ñaata lay jar 15000 barke Serigne Babacar si 20 euros lay jar 20 euros 15000 Félix Buus da ngay ba sa da ngay tok ba sa tadi boy felix bous mom la jël da teel live nak yow gogul ci bis bi rek tal tal live bi nan waaw gaay ñi ngi ni di di di wali eh, Waly Ballago sék moy teug fele ca bon insha allah rabbi waaw Belgique ngi ni mom ngeen ni seen feles ba ngi ni ñi ngi dugg Belgique bu nu duggé Belgique rek da une heure de temps dinañ yegg bon insha allah 17h yegg ba ca frontière ba ñu ne ko kali document mu génné passeportam ñu xol ne ko document permis de séjour mu ne yoruma ko. visa bi mun ta dem passeport bi mënu dem almaa yi lemaat ko ne ko cee kattal sa ndey dellu Paris fii kenn du fi duggee noonu.